ku xool mobilisation waxinaan ku xool jumtukaay yi fi indi xam nga ne Racine Talla newu fi waaye loxoom mu ngi fi maa ngi koy sant di ko gërëm ci ni nga xam doxalee na ko moom ak responsable yi nekk ci département bi ndax dañu tollu ci moment bu garaaw moment bo xamanteni ni pour man mo gëna a sax fa ñu tollon 2011 nga xam Sénégal yépp takku woon ne li nekk ci réew mi ci danger il faut que ñu artu ko te kiñ ci yaakaar mooy président Macky Sall jeunesse bi jóg jigéen ñi jóg xeex bi tàmbalee fii ci banlieue bi rawatina ci géejawaay ñu jël président Macky Sall yóbbu ko palais de la république te boobu ba léegi lépp li ñu yaakaaroon ci moom mu def ko ba ful ko bu dee ci wàllu social bi amul kenn ku ko ci mun bu dee yàlla la ñuy waxal moo indi bourse familiale moom indi wàññi loyer démb moo ci mujj conseil constitutionnel la interpellé ne leen dama bëgg a wàññi loyer ñu jox ko autorisation kooku mooy xalaat new si doole si bu dee wàllu infrastructure gis nañ lim fi liggéey fépp ci réew mi waaye ñun waa banlieue notamment waa Géejawaay gis nañu loxoom ci autoroute à péage gis nañu loxoom ci BRT gis nañu loxoom ci VDN bi ñuy defaraat bude ci walu njang mi ak njangale mi gis nañ ci loxom étudiants yi duñ ma wéti ndax ndekki étudiant mu ngi doon jar bu njëkk ba cent franc ñu wàññil leen ko wàññil leen njëgu repas may étudiant yëpp bourse loolu c'est le président de la république Macky Sall moo ko def bu dee ci wàllu mbéy mi sunu production lañ daan béy ci wàllu céréale ci wàllu gerte lépp da ko yokk ndax dafa jël jumtukaay yu mel ni engrais yu mel ni ay tracteur jox ko béykat yi bu dee ci wàllu courant Sénégal 2011 ñëpp a ko xamoon ci coupé courant yu dul jeex 500 mégawatts la ñu amoon léegi ñu ngi toll ci 1600 mégawatts yu tegal bu ñu demee sax ba coupure mënut a ñàkk mu am gars yi dañ naan garaawul du yàgg ndax kubbiru Macky Sall la du dépassé cinq minutes mais liggéey boobu ku nekk di ko liggéey ci réew boole ci indi fi jàmm indi ko ci Casamance ni ñi doon jooy ni ñuy traversé Gambie mu tabax pont wu Gambie tabax pont wu Marsassoum la boucle di Boudjé ak la boucle di Broof taxawal waa Casamance taxawal waa Fouta waa Sine ak waa Saloum bu dee ci wàllu santé amul benn région bu amul hôpital boo xam ne dafa mucc ayib bu dee ci wàllu diine ji tey la mujj mu doon inauguré la grande mosquée de Bokk waaye loolu ci la dëkk waa nit kuy liggéey liggéey bu mel noonu réew mi am jàmm ñu toll ñu ne dans un an dañuy am élection présidentielle am ku jógee fële la job ne ne gen ne senegal lepp lu ngeen mason xam ci jàmm danaa ko jexal tay buy wax wax ju ñaaw lay genné di menacer nit ñi di wax waxu tour deret di saga serigne si di def promotion

ki nga xamante ni nag dafay yor lañset ne tey rey waa réew mi kooku bés boo ko joxee jaasi wala moo ko jox ko fetal mooy réew ma la fa yàq yooyu yaay responsable yàlla bu defoon ba mu jot ci réew mi yéen a ngi wax géejawaay dañoo rëccu waaye su boobaa rëccu du am ndax doo am foo ko jooyee ndax ki nga xam dictateur la ci biir këram dictateur la ci bir partem dictateur la ci ni muy waxee bala muy kontaan rek muy compter nombre de morts mois de mars 2021 de rus mu naan on a tant de morts ci mor yooyu y'a tant de tidiane tant de khadr tant de mourid mel ni dafa bek ci lolu nga xam ay bakkanu doomu aadama lañ ci wad kooku laa waxeenti ne suñu buggee suñu réew il faut que ñu jog taxaw góor ñi taxaw jigéen ñi taxaw ndaw ñi taxaw mu jaral ñu lu ëpp lim ko jaral ngir jàq yàq réew mi ñun nañu ko jaral menaces yooyu muy def nag menaces yooyu muy def di ko jëmale nee nañ ci responsable Benno yi ak responsable APR ñun dégg nañu ko bu baax te jël nañ sunu matuwaay ndax nag musiba baaxul waaye képp ku yëkkati jaasi di ko jubale ci yow mu toll fële na ci yow laa jublu si ngir gor la suma jaasi ji su la fekkee nga toog jàpp sa ñaamul mu gor la ko boobu yow yooyu yaa def erreur nous les attendons de pied ferme nous n'aimons pas la violence nous n'aimons pas la violence parce qu'elle ne mène à rien mais nous n'allons pas sacrifier nos vies au contraire, nous sommes déterminés aujourd'hui plus que jamais à défendre les valeurs de cette République, à défendre la stabilité de ce pays. Et eux, ils l'ont dit, mais nous, nous sommes prêts à le faire au prix de notre vie. Nous, nous sommes musiba jaral le nous au ñun de notre il faut que l'on le l'air.

se taisent devant les violences faites contre les femmes, y compris les violences verbales. C'est scandaleux qu'une société civile puisse prôner qu'on annule un procès au nom d'une certaine stabilité. Et comme quelqu'un l'a dit avant moi, l'adjoint, si on devait arriver à une situation où un Sénégalais, quelle que soit sa puissance, puisse dire j'ai décidé de ne pas répondre aux tribunaux, de ne pas répondre à la justice du pays, mais ça vaut plus la peine de vivre dans ce pays. Ça veut dire que cette république est terminée. Ça veut dire que la démocratie est terminée. Ça veut dire que la liberté est terminée. Ça veut dire que la justice est terminée. Nous allons défendre la justice en tant que citoyens. Nous allons la défendre. Il n'est pas question qu'on puisse menacer les juges, qu'on puisse menacer l'État, qu'on puisse menacer les chefs religieux. Ce n'est pas acceptable dans ce pays et Inch'Allah, nous ferons face. Je voudrais remercier tous les responsables de Wakinan, du département d'abord. J'ai cité tantôt la Job, je vais citer Madame le ministre Nene Fatoumata et la féliciter pour cette belle mobilisation qu'on a organisée en moins de 48 heures. Je voudrais la féliciter surtout pour euh, sa sérénité mais son engagement permanent auprès des femmes. Nene Tal Oui, responsable du département bi les di parti dans les cinq communes ñoom Sada Sall nga xam mooy coordonnateur Wakhinane Mika Ba bu Sam Notaire Pape Sall bu Gounass Abdou Sène bu Ndiarème Limamoulaye noonu lay gërëmee jigéen ñi nga xam ne ñooy coordonnatrice yi muy Fatmata Guissé fii ci Wakhinane di euh, Kiné Fall ci Gounass di Fat Fall ci Sam Notaire di Ndeye Fary Diop ci Golf Sud di madame Thiam ci njaareem li mu amulaay waaye maa ngi sant aussi di gërëm jàmbaar yi nga xamante ne ci yeneen communes yi waaye ci Wakhinane ñu ngi animé parti bi mosuñu tay mosuñu tiit mosuñu ragal suñu jigéen Dieynaba Traoré su waxee ne dina mobiliser dimanche dinaa ko gëm bu àndee ak ay jàmbaar yu mel ni madame Talla bu ñu waxee ne dinaa mobiliser dimanche dinaa ko gëm su àndee ay jàmbaar yu mel ni Mariétou Faye su waxee danaa mobiliser dana ko gëm su am àndee ay jàmbaar yu mel ni Fat Si su waxee dana mobiliser dana ko gëm su àndee ay jàmbaar yu mel ni Nogoy Ndong su ne danaa mobiliser danaa ko gëm su àndee ak ay jàmbaar yu mel ni Aram Taal su ne danaa mobiliser dimanche man danaa ko gëm a su ma naree citer toutes les femmes de Wakhilan Nimzatt du ma jeexal tey maa ngi leen di xalaat ñoom ñëpp vraiment di xalaat aussi seen responsable yu góor ay jàmbaar yu mel ni Mamadou Yaya Ba ay jàmbaar yu mel ni Oussou Dia ay jàmbaar yu mel ni Aliou Dia ay jàmbaar yu mel ni Badou Fall jërëjëf donc euh, dimanche bu soobee yàlla nañ ko fi waxee sànq mais maa ngi nuyu surtout mon jeune frère Khafor Touré nga xam ne Racine Talla nekku fi Racine Talla nekku fi waaye mel na ni mu ngi fii ndax dara manqué wu fii kon Khafor gàcce ngalaama ma di yëgal ne meeting bi biñ ko taxawalee ñu ne parti bi pare na pour financer meeting bi ñun waa Géejawaay dañu ne soxlawuñu parti bi di ñu jox dërëm responsable yi ngeen gis ñu toog seen ginnaaw ak ñi nekk ci Géejawaay te jotuñu ñëw ñoo jël seen doole ba nga xamante ni dimanche dara du leen manqué car du leen manqué ndox du leen manqué dara du leen manqué lépp dinañ ko def ci mobilisation bi kon nag jàmbaar yooyu Je vous ci liggéey bii de ngi di générosité dimanche c'est le 5 février mais dimanche pour nous, on est à 12 mois de l'élection présidentielle de 2024 pour nous, affaire bi dafa l'air. nous combat pour reconquérir le pouvoir et maintenir le président Macky Sall à la tête de l'État démarre le 5 février au terrain de CFA. terrain CFA pour que l'histoire histoire parti Moi, conquête du pouvoir foofu le le donc pour nous c'est symbolique et c'est important que Guédiawaye ait une mobilisation monstre pour que le 5 nous démontre que nous reprendre nos bases nous reprendre nos majorités on le fera dans l'unité on le fera dans la générosité mais on le fera sur le terrain à partir d'aujourd'hui je puis vous dire qu'ensemble avec tous les responsables il n'y aura pas une semaine il n'y aura pas dix jours nga nous quartier yi marché du leen ñu gis ci atelier yi dinañ ñëw mobiliser waat nit ñi wax leen liy dëkk wan leen yoon bi ndax 2024 on reprend le pouvoir tegaat réew mi fi nga xam ne foofu la mos a muy réewum stabilité réewum koom-koom réewum jàmm réewum salaam maa ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam